laa tafxalu cheyan bi xeyri izni fal isnu chartun fi xabooli sa'ni mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bu nu santee sunu borom subhaanahu wa julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar ci seyxuna ahmadul xadim noo ngi ñaanal sëriñ Touba cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal lool te gën a dolli ak wéram ñu santaat yàlla bu baax mu mayaat ñu toog jataay boo xam ne jataayum ndigal la bu bàyyi ko ci moom jëm si ci rakkam gi nga xam ne moo yore kàddoom di taalibeem di cheikh Mouhamadul Bachir ibnu cheikh Ahmadul Xaadir mu jëm nag ci kër gi nga xam ne bu ndigal masa bàyyi ko kër Serigne Touba ci kër googu la jëm kër googu di kër maam cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine nuy ziar bu baax sëriñ Serigne Amdi Modou Mbenn mi yàlla teg ci bopp njabootuk maam Cheikh Rahima Fall di ko ñaanal yàlla sunu borom gën a guddal aw fanam te gën a dolli ak wéram te nangul leen seenub liggéey ci Serigne Touba ñu toog fii ci kër sëriñ Touba gi mu yebal fi ay rakkam ak njabootam te sëriñ Saliou Fat Saw nekk nii ànd ak njaboot gi yëpp ñu dend ak Cheikh Mouhamadul Bachir mu fas yéene yëkkati ay kàddu yu bàyyikoo ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha jëm ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñun ñëpp ñu maase déglu kàddu yooyu. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalu Serigne Touba Cheikh mu taxa di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba suñu borom ñaan yàlla suñu borom mu kàttanal ko ba mu àggale mboolem naa yi nga xam ne am na ko ci liggéey Serigne Touba yépp ci ni mu ko bëggee. di leen gàtt yottali jottali ay nuyoo ak cantam ak i ngërëmam jëme ko ci bokk jurit yëpp ak bokki taalibe murit yëpp yëkkati ndigal nag jëme ko ci sëriñ Mouhamadou Moustapha Fall mooy sëriñ Amdi mu sëriñ moodu Mbenda mi nga xam ne yàlla def na tey moo fi jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall ñu koy ñaanal moom ak rakkam yëpp ak ñu topp jigéen ñi yëpp kàttan ak wér. ba mën a liggéey Sëriñ Tuubaa ndax ñoom seen kàddu yépp li ñuy ñaan mooy yàlla na jekku ndigal kon loolu mooy foo leen fekk rek jekk nañ Cheikh mu Mountakha yónni ba ci moom ndigal ndigal li nag weesuwut barab bi ñu tuddee gaar bu mag te yaakaar na diggante daaw ba na ñépp a ngi dégg la fay xew ci loo xam ne dëppwut ak ni dëkk bi war a mel sëriñ bi nag jox ndigal sëriñ am di jox ko ndigal ne bu àjjuma ak jàmm ñu dem fa buñ demee xool la nga xam ne moo indi jafe-jafe ba lépp ñu dindi ko ba set wicc di tax mu taamu ko ci nag bari na ndax wóor na ku ne ndigal bu jógee ci kër Sëriñ Tuubaa dem ci kër maam Cheikh Ibra Fall samaan wa taxatan rek la fay fekk ndax ñoom amuñu tànn amuñu lu leen gënal lu weesu lu lu gënal sëñ bi ba ma ci yónnee itam looloo sëñ am di wax dana ma ndigal lu jógee ci kër sëñ Tuubaa jëm ci kër Cheikh Ibrahima jëfi ndigal la képp lay am ne sëñ bëggee ni lay am kon sëñ Saliou yow mi ngi xam ne yaa ak sa rakk yëpp ak sa doom yëpp ak taalibe yi yéen a fi teewal sëñ bi sëñ bi yabal leen ngir ma jotle kàddu yi ba ñëpp xam ne ndigal la lu bàyyi ko sëriñ bi kon loolu la ko ñëpp bàyyi xel xam ne ajjuma jàmm la yéen la ko sant ngir ñépp ànd ko yéen waaye xam na ne bu ngeen jiitoo rek lépp na mu bëgg dana ko ne amee kon nag ñu ngi leen ci ñaanal la seen maam ji jaayante woon ak sëriñ Tuubaa yàlla ne ko ci sëriñ Tuubaa defal ndax xam ngeen ne kat dëkk bii di Tuubaa ak fu sëriñ bi ma sa sanc fu ne xam ngeen ne lii tey ñuy def seen maam moo ko fi jëkke mooy bu kër siñ Tuubaa moo ko fi jëkke mas sama dégg ci sëriñ son yi bu wax ne mas naa romb ci biir kees sëñ bi gis ki ñuy wax sëñ Bànda Sow bokk na ci ñu daa root ndaa yi ak di buub kër gi nee na bi Ibrahima ci ko xamoon lii ci buub ëttu ko sëñ bi kon nag lii leen sëñ bi defaat ci biir lool rek la bi xam ngeen ne at mu jot tam bu màggal Tuubaa gi di jub si ak bu jàllee ndigal li lépp ci seen loxo la koy tegaat waaye saa su ci tegee dana dangeen ko def ni mu ko bëggee kon nag mi ngi leen ci ñaanal la Serigne Touba waxoon ne xam ngeen nu may xamee ne li ma leen sant def ngeen ko wala dee ñu ne ko dee mbàkke mu ne waxtu ma sante nit day am lu jug ànd moom bu jigéen digale nag mu dëkk moom bu jëfee digale nag day dellu si waat ci man dima xamal ne dem naa waaye mu foo ne nag wóor na kon loolu du dara mukk kon la chef daal waxoon ne. ñaari kër yi dafa am mbañ mooy kër Sëriñ Tuubaa ak kër Cheikh Ibra na kër Sëriñ mbañam mooy ñàkk joxe digal kër Cheikh Ibra mbañam it mooy ñàkk jëfe digal kon nag yaar yëpp daje na kon nag yàlla nañ ci daje tawféex te xam ne itam nag Sëriñ Tuubaa bi muy sañc dëkk bi daa fekk fu dara nekkut mu sanc ko waxoon ne itam yaar rekk a tax ma sanc ko mooy daw nit ñi ak daw li nekkul ci daw li nekk ci loxo nit ñi waxit na dëkk bi itam ku fi sam xel indiwu saw xel dina defe ni kon nag loola moo màgg tey ba dëkk bi agsi fii mu agsi waaye xam ngeen ne tawféexu suñ borom am na ci bu baax ndax dëkk bi nu rëy nekkatul ab dëkk am réew la bu fekkoon beneen dëkk bu mu doon saa soo xëyee da dégg mbooloo mu faatu kon nag loolu ñaaru Sëriñ Tuubaa mooy li nga xam ne moo ko gàttalu moo ñu gunge waaye li ci suñu war suñu waru gar nag faaw ñu di ko def moo tax Cheikh mu Mountakha wax ne li ko fi bàyyi mooy wattu ak sàmm li muy wattu ak di ko sàmm nag mooy taalibi Sëriñ Tuubaa yi ak dëkku Sëriñ Tuubaa yi ndax Sëriñ Tuubaa loolu képp bëggam kon nag lépp loo xam ne gis na ne nekk na fi te wóoru fee nekk fas yéene loolu lépp mu jóge comme dama ko waxe woon fii yéen nag sëriñ bi nee na ngeen xam ne liggéey bu door a tàmbali la waaye am na yeneen liggéey yu ne toll yu ko ëpp ci biir dëkk yoo xam ne seen loxo la ko fas yéene teg bokk na ci corniche bi ñi fi tabaxi place ñëpp nañ xam ne fu ñu war a jóge la ndax ab corniche du fu ñu war a dëkk ndax sëñ bi dafa natt ay pàkk ay junni junni junni junni pàkk te amu ci benn pàkk boo xam ne dañ koy jaay ku accès dañ la ko jox ngir jim siñ Tuubaa koo ko jaay daal mooy ki nga xam dañ laa mooy pàkk nga jaayaat ko kon nag corniche du fu ñu war a dëkk te xam ngeen ne Tuubaa mi ngi màgg te la tax suñu kilifa yi fi jëkk yi fi yi jëkk yi fi newoon tàmbalee ko ci Cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne moo ko jëkkoon a natt ku gis mbedd yi ni mu ko yaatalee nga xam ne xamoon na fi dëkk bi jëm si. 120 mètres bi nga xam ne Serigne moo ko fi defoon itam xam ngeen ne ñu bari nga dëkk foofee ci li ñu war loolu nag sëñ Abdou Lahad nga xam ne moo jiite commune bi mu ngi koy saytu ngir xool yi nga xam ne jaaduwut tañ defa fa yëpp bu noppee ba liggéey bi jeex jàmm. sëriñ bi dana ma yónniwaat ci sëriñ bi ma jottali ko ndigal la ci topp ndax sëriñ bi nee na bëgg na daal bu soñoon dëkk bi xar kanam bi dëppook dëkk ko si dëkku sëriñ Tuubaa waaye nag fu neex waay dëkk fu neex waay teg dëgg la nag dëkk bi de dëkku yërmande yërmande ji moo tax mu agsi yi waaye lu yërmande ji bari bari nag nit ñi kenn wërta xool sa njëriñu bopp bay loolu ñëpp te am na ci bu fa àggee foofu lay àgg dana mujj ñu sakk mbedd yi kenn dootu amatu fa jaar léeg nga jëm ci barab bu gàtt boo xam ne yoonoo dana xat-xatin boo xam ne ndax njaay yi dañ koy tegale ku fa jaar da nga xam ne lii kat du lu jëm kër kon loolu lépp itam lu ci war a tege na loo xam ne sëriñ bi ci seen loxo la ko fas yéene teg ngir ngeen sàmmal ko ko ci dëkk bi ngir wóor na ko ne bu ko tegee tegee ci seen loxo rek na ngeen ko na mu ko bëgg da da ko dana ko ne amee kon nag ñu ngi leen di sant bu baax leen gërëm ndax yéen xam na ne fu ngeen toog rek xaar ndigalu Sëriñ Tuubaa moo leen fi bàyyi. kon incha allah bu dëgg li jàllee jàmm yeneen yi ci war topp yëpp dana ñëw leeral leen ko bu ko defee ba dëkk bi setaat delluwaat ca ne ko borom bëgge ndax xam ngeen ne kat bari na lu fi naqari sëriñ bi li ko fi naqari la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon rek amu ci lenn loo xam ne moom moo ko tere lu suñ borom tere la rasulullahi digle ko sëriñ ñëw yee salaat ko moom mu ñëw di ko fàttali kon nag loola xam ne nañ xam ne dëkk bi dëkkub lislaam dëkku dëkkub Serigne Touba la dëkkub nag am na worma yoo xam ne noonu la ko ñëpp war a maase jox ko war ma jox loolee nag Serigne Touba dafa wax ne biix di yaari bi bu ko ay bu soñoon njaboot gépp dañuy gindiku te kenn du leen dóor yar ndax Serigne Touba moo ko bëggee noonu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon naa ko fi bu yóbbu daa waxoon nit ne ko xaadal wara noo koy bil adabi noo koy firé mu ne ko xaada woo mën na alwara mbindeef bil adabi ci teggeel mu ne ko bil adabi ca nañ ma ne moo sëriñ bu soñ du xo du xawi suturus kenn waaye nit ñi itam nag nañ xam ne lu yàlla tere rasulullah tere ko Sëriñ Tuubaa tere ko loolu képp koo def itam lor képp nga ci jële te bu soñoon kenn du loru kon nag xam na ne fee marché ba xew ñàkk sécurité ga bari na te ñàkk sécurité kat fu mu tàbbi nit du ta tara jaamu yàlla moo tax suñu borom di wax ci alxuraan ne falyabudu rabba haazal bayti allazi at'amahum min juu'in wa aamanahum min xawfin ngeen xam ne ki nekk ci njàqare ki nekk ci njàqare du sa du am teewlu mën a jàmm yàlla moo tax ngeen tudd li ñu tuddee salaatul xawfi sax ngeen di ko gis kon sécurité mooy la war a jiitu fem mooy la war a am na loo xam ne itam sëriñ bi fàttali woon na ko fi sëñ Abdou Lahad xam naa na ko topp xool ko yëpp loo ci gisate nga ànd ko kilifa yi nga xam ne ñoom la ko sëñ bi seen loxo mooy ñi ñi yar xaj yi ci biir kër yi am na ñu dem ba àgg ci wax ne dañuy dajale ay xar sax di leen sànni ci mbedd mi ñu daw te xam ngeen doon du aada ju rafet dëppoot ak diine dëppoot ak dëkk bi loolu lépp nag sëriñ bi wax na ne la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ne sama bakkan la ci teg ñaar mooy itam fas yéene fas na yéene ñeen xam ne ndigal lii mu joxe rek ñii mu ko teg seen bakkan wóor na ko ne seen bakkan la ci teg kon mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi ngi nuyu Serigne Cheikh Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khader si turu Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall. nuyoo boo xam ne ñu ngi ko jaarale si jëwriñam yi toog di Serigne Saliou Fall. ak ñi mu àndal muy ay rakkam ak doomam ni ko sëriñ bi waxe sëriñ baa ngi jot li ab nuyoo ak i siyaar ci jëwriñam ji Cheikh Modou Muntaxa di ko teg ci loxol sëriñ Basiru Mbakke di ñaan yàlla sama borom kàttanal leen te wéral leen yéene di ñu am ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi ñu def ci loo kawee seen njort te ànd ko taalibe yi sëriñ bi wax ne moom de mi ngi dollee sant bu baax a baax sant gi li ko waral mooy moom dafa wax ne li ko fi indi te bàyyi ko fi mooy jëfe ndigali sëñ Tuubaa yi rek sëriñ Modou Aminta Fall daana def waxtu ndaw masaa bàyyi ko fi sëñ Tuubaa ñëw fi moom indi ndigal balaa wax ndigal la dafa wut addiya akum am neexal jox ko ko ngir xam ne li koy dundal mooy jëfe ndigal moom la ko ndaw loolee indil loolu yi nag ñoom ñoo ñëpp tàbbi nañ si sëriñ bi di dollee sant bu baax a baax di wax Cheikh Bassirou Mbacké moom sëñ Abdou Khadir ne ko moom day li ko fi bàyyi muy jëfe ndigalu sëriñ bi rek jàngoro joo ji nga xam ne day mooy ñàkk a mën a jëfe ndigalul sëriñ bi loolu de nee na fasut yéene mu dal ko mukk seddina lépp luy ndigal bàyyi koo kër sëñ Touba ñëw kër Cheikh Ibrahima Fall fas na yéene ànd kook njabootug Cheikh Rafal gi ñu jëfe ko na ko sëriñ bi bëggee ndax Cheikh Ibra moo waxoon sëñ Tuubaa ne ko yow féeteel ak sa boroom yow mi ko xam ma féeteeg yow man mi la xam sëñ Tuubaa nag féete ga mu féete woon ak boroomam kenn ku ne xam na lam sa am ak lam ko jural waaye Cheikh Rafal it fa mu féete woon Cheikh Rafal sëñ Tuubaa mooy feeñ nii si ba si jataay bii nu toog ndax sëriñ ba Basiiru mii di wax di doomi sëriñ Abdou Khadir Mbakke ndigalu sëriñ bi rek moom lay dox amul jënn yitte ju dul bëgguk sëriñ bi loolee nag lépp tàbbi na si liggéeyub Cheikh Rafal ba kon nag ñoom ñi nga xam ne fi ñoom la loolu sosoo fas nañ yéene ku bokk si seenu njaboot lenn rek mooy sa jubluwaay mooy ndigal lu jóge kër sëñ Touba agsi ñu jëfe ko ni ko sëriñ bi bëggee sëriñ Cheikh Basirou sëriñ bi nee na lii ko sëriñ bi digal fas na yéene jëfe ko ni ko sëriñ bi bëggee ba mu amee ko nu ko nu ko gënal muy ñaan yàlla sama borom yàggal ko fi mu yàgg koo jox ndigal mu yàgg koo jëfe mook ak njabootam moom nag baaxoowul wax comme nii nga ko sëriñ bi wax xamee jëf rek déglu ndigal jëfe ko rek kon kàddu yi may jottali mu jëm nag si mbooleem taalibe yi képp koo xamante ni kii sa yaakaar yaa ngi ko wékk si sunu jàmbaar ji di maam Cheikh Ibrahima am nga ndigalul jekk te xam ni lii sëriñ bi digle te bëgg ko sëriñ bi digal na képp ko di taalibe bu àjjuma jàmm nu daje fa gaar ba ni ko sëriñ bi waxee ndigal lu nu nu joxoñ ñu def ko ñu defe ko na ko sëriñ bi bëggee ndigal nag bokkut ak jëfe am xel ndax xel moom ni sëñ Saliou waxoon rek day dem ci garab yi dem ci géej gi dem fu ne waaye tànk moom tege ci wu yoon mooy tax mu àgg fa mu jëm nun mbaay faal nag li nu tënk mooy ndigalu sëriñ bi buñ nee wow na wow na buñ nee tooy na tooy na sëriñ bi am di dafa wax ni amul genn bëgg amul lenn lu muy sàkkul boppam bu noppee mën a jëfe ndigalul sëriñ bi mooy defatu fi dara loolu nag ñeel na mboolem ko dib taalibe te yaakaar maam Cheikh Ibrahima Fall kon bu àjjuma ak jàmm ñu daje fa rek yar bi nu nu xamee ak teggin yi ndax Cheikh Ibrahima Fall taalibe ba mu koy jàngale dafa ne nanu xool makaarimal axlaax nañ teg sunu bët ci jikko yu rafet yi mooy ab taalibe dafa war a dajale jikko yu rafet yépp mu xam ne waxtu wu seetee wala mu làmb xam ne am na lu des mu def itteem si mottali ko waaye waruta nuru koo xam ne kii da ngaa ànd si topp sam xel rek fu la neex nga jëm ndigal moonu tënk kon ndigal la ñuy déglu sëriñ bi nee na nañ topp si ginnaaw ñi mu tànn def leen ay jëwriñ ñu nekk si kanam ndigal lu nu joxe ñu jëfe ko li sëriñ bi bëgg nag fawu day am nii ko sëriñ Cheikh Bass waxee lu weesu gaar bii bu ndigal ñëwaatee si dëkk bi nii ko sëriñ bi waxee nu ko sëriñ bi bëggee sëriñ am di nee na nu ko sëñ bi bëggee rek dana ko ne amee ci diir ba mu ko sàkkoo nag ak ba mu ko bëggee yi ñàkk a mën a jëfe ndigalu sëriñ bi moom nu moom waaw dalunu ndax def loo man ngóor a newu si ku def loo man yem sa yàgg ñëpp yem ngóor mi ngi si def mënul te lu nu sëriñ bi digal nu def ko sëñ bi nag a waxoon ni ku ma defal loo man ma defal loo mënut waaye ku ma defal loo mënut ma defal la jomb nun nag yemuñu si def la nu man lu nu mënut ndax sëñ Tuubaa bu muy génn di dem booba métti wan na lool waaye la ko yóbbu sëriñ Cheikh Bass yàgg na koo wax mooy pas-pas ak yitte yitte jooji nag moom la defal si suñ taalibe yii ba kenn ku ne lenn dong mooy sa bëgg mooy jëfe ndigal yi soxlawuñu dara bëgguñu dara jëfe ndigalu sëriñ bi incha allah bu àjjuma ak jàmm ni ko sëriñ bi bëggee sëriñ am di nee na dina ko defee noonu incha allah ànd koog mbooleem njabootug Cheikh Fall gi ndax mbooleem buntu kër yépp fenn fu ne démb ba ndigal li sant na ma man mii mbooleem buntu kër Cheikh Ibra yi ma jokkoo ak ñoom xamal leen ndigal li jóge ci Serigne Mountakha jaar Cheikh Ahmadou Bassir ex fi moom ak mbooleem kër maggi taalibe yi kon lii day doon kàddu gi nga xam ne ku ci jot nag xamal ni mooy sab woote wàjju maak jàmm incha allahu ñu daje sa gaar ba te kenn bañ a defal sa bopp sam xel ñu déglu ndigalu sëriñ bi ba bu nu ko jotee soo a mën a jëf ñu ngi sant di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa